way. spécial baa ngi noonu ndeysaan sàcc mbay bu zawal ak idi bu ngëriñ waaw waaw ndeysaan ki nga xam ne moo di sàcc mbay zal njaaye ko ki nga xam idi bu ngëriñ Pape El borom jurum ndeysaan waaw président Sangomar TV war a ñëw le 11 ak le 12 juillet ànd ak ensemble yooyu ànday Fatou Adama Jali ak Mbaye Loum le general des general fas yéene combat ba fils de Babou Ngom Momo Ngom doomu nday Ndiol ja xujo waaw waaw ana aso ndong sama góor def yo naan félicitation selemele jël ga fi nga xam ne di adresse Senghor si kaw gaskel waaw waaw tey lamb ndeysaan jom fo pelalum waaw waaw ma mënoon a juddi waat séeréer lay doon waaye ñu ku bañ nga nga gën ñaaw ko du neex waaw waaw ndax nee naa la lamb ngel ah ngel ak li nga xam ne ndeysaan moo di loolu lépp a neex tarka la macha allah waaw waaw ndeysaan lu gaay di xaar waaw drapeau kuréel gaa ngi noonu waaw waaw cokkaas na ko at ba suuf la ne la sàcc may cokkaas ko yóbbante këpp ku ndeysaan waaw waaw diggante sàcc mbay ak ki nga xam ne di di bugëri di bugëri ñu ngi ni di ko déew waaw dóor na ko daw na jël ko o oh, waaw sàcc nga kay laaw waaw waaw idi sàcc jël na tànk ba nelaw ca génne na ko ndeysaan waaw waaw ñu xool waaw waaw combat ba du yomb xeex pour peñ gauche droite waaw waaw Sathie Mbaye ngi ànd ak Blindé waaw waaw ànd ak Sall Ndiaye waaw waaw ànd ak bu ngëriñ ànd ki nga xam ne moo di ndeysaan Star ak ki nga xam ne ndeysaan mooy Jackson waaw waaw ngi toog la ilaha illallah Idi ñu woon ginnaaw Sathie Mbaye lañ jàkkaar lool ndeysaan demaan na kaw xeex dóor eh, Sathie Mbaye yàgg bëre la xam na luy bëre dóor ndeysaan waaw waaw digu ndëriñ Sathie Mbaye <laughs> Adama Roubé leen ma ne ñaari marié lañ <laughs> waaw waaw waaw waaw nee na bu dee jiitu ci bëre ay naataango lañ ay morom lañ waaw waaw waaw daw daje Mor Feeñ génne oo oh, ndeysaan saa waay nga tàccu Kabera Sey président Sanga Martin gi borom le 11 ak le 12 ndeysaan ànd ak ngaan saamu naan ko gaawal ndax nga duñ séeréer dañoo am làmm te dañ ko faa war a yëngal waaw waaw bi baaxul de idi bu ngëriñ moo ñu woon ginnaaw noonu waaw dóor na oo oh, ku daw na jël na tànk ba oo laa ilaaha luy am idi bu ngëriñ daan na daan na Sathie Mbaye la ilaha illallah Idy bu Ngëriñ def na waa Zawal 2-0 waaw waaw confirmation ziar naa la waaw mais naka moom lépp jàmm na ñoo lay doole ziar nga am loo ma waxoon keroog si signature ba dina nga dugaat Zawal defaral leen daal di génn nga ñëw tey confirmé ko loo bëre ok xamoon naa ni lay demee parce que ñi waruma leen ruusloo waruma leen ruusloo tey dañ maa yeb xale yeeg mag ñeeg ñëpp xam nga kon tey nii rek la mënoon demee waruma woon juum kii mag la mag mag waruma taxaw sax ak kii kon samay supporter xaw ma dañ ma war a bàyyi xaw ma loolu laa la waxoon li ma la waxoon moom laa ñëw rek def parce que mag a xale la xale doole lay jaay dem yoonam te lool laa ko woon. mag a xale la yóbbante na la ay la ah. yóbbante na nga ni mag la loolu nu mu mën a nekk. Ah, mais dara la rek boo fàttul kay day dal rek waaw. Ah. mais coup bi dama ray rek do dama do dama ray rek non rek. xamna ne tànk bi tànk bi lima ci si parce que dañu koo gëmloo ne gan gi tànkam day met mais xamna ne lima ci si ko coach lima ci si lo ci tànk bi ni man nako jël mais mënu ma si def ben ben ben benn kii ñëpp avant may ñew waxon na la ak kéro waxon na la loolu lay bëree day japp sama tank japp na sama tank mais amul doole bu mu ko daané dan gi du kii moo kii moo may daan ngir yàlla. man kuñ ma jox parce dañ maa yónni yàkkamti ma kuñ ma jox pare naa na doon bër rek waaw li ma waxoon Père Raay na doon bër rek waaw. ah fooguma ko nag waaw aw ma si yaakaar mu génne